Boucar li nga wax am na solo dina ñu ak yow on continue avec les réactions monsieur Mbodj euh, Mamadou Mbodj coordonnateur F24 ñu ngi lay nuyu. Ah, ñu ngi leen di jërëjëf euh, alors euh, dégg nañu li président de la république wax abrogé na décret bi convoqué woon corps électoral bi ça veut dire que élection présidentielle bi waroon na am le vingt cinq février prochain dàq na ko F24 lan mooy seen réaction ci décision boobu. bon xam nga barki démb rek wax nañ ne def nañ conférence de presse. ne mm. ñun d' accord ci conférence ci dàq élection yi. te li ñu déglu mu wax ak la ñuy wax boobu léegi bettuñu waaye naqar bu métti lañ ci am parce que gë yaakaar nañ ne président daam tuuti étoffe euh, homme d' état bu tax du dugg ci waaye malheureusement liñ ko xamee. la muy def ba fi nekk bi léegi la def maanaam loi yi da koy salfaañee teg ci tànkam lu ko neex def ci réew mi mm. donc gouvernance voie de fait la fi nekkee donc euh, vraiment euh, lu ñu naqarlu la parce que lii mooy ngor ak jom ak valeur ak droit ci réew mi dañ ko gas suul mm. parce que boo gisee prétexte principal bi nga xam ne moo la moo la PDS indi mooy Karim Wade defara war a bokk te li tax ñu tere ko mooy que dafa def parjure maanaam dafa def dafa wax loo xam ne dëppoowul ak dëgg ba pare nag rax ci dool yi ñu fàtte woon ñu meloon Karim Wade daf ñu war cent trente donc mooy yoo xam ne mooy tey euh, Macky Sall ak ak ay ñoñam lu leen neex la ñu def ci réew droit ak moral xamul ci dara donc loolu wax dëgg yàlla euh, mënuñ ci lu dul naqarlu ko di woo nit ñi nag ñu taxaw temm parce que nit ñi bari na ñi nga xam ne contre nañ ko nañ defoon li ñu créé F24 def benn front uni ñëpp taxaw ñu ànd xeex ko askanu yëpp xeex ko parce que Macky Sall du fi def un jour de plus au-delà du 3 avril. Hmm. ça c'est pas normal ah oui oui c'est pas possible il faut pas ah, s'arroger le droit d'augmenter son mandat après avoir ah, bi mu xamee ne moom moo le mandat est intangible euh, moom moom mi fi wax ne mandat bi euh, kenn mënu ko yokk kenn mënu ko wàññi donc à part de ce il faut qu'il parte donc na def élection normale ñu xool kan mooy gañ ñu ko réew mi waaye gëwuma ne nii mën a toog di xaar parce que li ñuy xaar dafa yàgg depuis plusieurs semaines ngi xaar ñu ngi xaar coono bi nga xam ne mënuñ teg askan wi mu dindi ko léegi mu xëy bëgg bëgg bëgg ba ne loolu lañ non c'est pas possible. li mu joxe comme motif li mu joxe comme motif jàppoo ne lu taxaw la. non ban motif c'est un prétexte c'est un prétexte amul benn motif valide bu mën a tax reporter élection y donc li xew mooy. prétexte pour def li neex bañ fi nekkee ba léegi loolu la ñuy def te loolu la ñuy def picc bi ah pas parce que comme j'ai dit euh, lan mooy prétexte pour gën bon bu fekkee ne ay ay magistrat yu corrompre nañ def enquête bu ñu paree ki ñu sanctionné leen bu fekkee ne Karim Wade la Karim Wade ci taxawul lañ ci wax dara dara taxawul il n'est pas question que quelqu'un qui a fait un parjure te Karim Wade 2019 il s'est présenté il a dit, fi a fait une déclaration sur l'honneur pour dire qu'il est, qu'il est exclusivement euh, qu sénégalais. waaw ba pare 2023 mu répété ko ñu jàpp ko ñu ne dafa war a bokk par force maanaam daal fen ak jublang ak càcc li ko def mu neex la euh, te dara lu ci fekk ah bu ñu imposer loo xam ne du dëgg du yoon maanaam moral baleur lépp dañ koy gasul ci réew mi ba pare ñëpp kenn wax non loolu duñ ko nangu duñ ko nangu te li ñuy woote mooy na ñëpp taxaw. candidat yi ñi nekkul candidat ñëpp dañ taxaw ñu bokkoon F24 ñu ñëwaat ñu créer conditions yi nga xam ne dañu tax Macky Sall reculer parce que il se donne porte de sortie en disant il va ouvrir des négociations allons-y. dialogue mais qu'il respecte qu'il respecte le calendrier électoral. dialogue dialogue à la condition seule que le calendrier électoral soit respecté. et ça c'est possible. monsieur Mbodj est loolu mën na nekk campagne bi tey la waroon ubbi moom abrogé na décret bi convoqué le corps électoral. waaw mënul ne li fi mën nekk am rek bu fekkee moom kaw lay wut boobu ba léegi. ñu ngi koy ruumandaat. justement ba léegi depuis waxuñu lenn lu dul nañu éviter kaw. Mm. wax nañ ko waxaat ko mm. nañ éviter kaw kaw mm. baaxul ci réew mi. xeex ak ñiiroo baaxul ci réew mi tuur deret tëj ay nit amul amul solo dañ ko bàyyi loolu lañ fi wax depuis six mois tey nag moom mu bëgg créer condition d'un kaw. da ngeen ko ciy fekki yéen F24 da ngeen koy wuyu ci loolu. non wuyu ci lan. ci kaw bi muy woote ndax yaa ngi ne na ñëpp taxaw ça veut dire que ne ñëpp wàcc ci mbedd mi. ah oui oui bien sûr bien sûr na ñëpp taxaw bu ñëpp taxawee léegi ñu xool naka la nga def mais euh, xeex moom lu priorité. Hmm. mais bu fekkee loolu fi des loolu moo fiy des parce que euh, loolu kenn mënu ci dara ñun mënuñ ci dara loolu euh, bu fekkee loolu rek fi des loolu fi am parce que moom kaw la bëgg bu kaw la bëgg dina ko am. ñun loolu kenn mënu ci dara fekkee ubbi na porte pour que ñu respecter calendrier électoral bi mais loolu moo gën. mais bu fekkee ne xeex rek ci des xeex fii des boobu kenn mënu ci dara. leer na jërëjëf Mamadou Mbodj bokk nga ci ñu jàpp ne candidature Diomaye moo waral lii lépp. mais oui bien sûr en partie parce que ñoom li ñu sóoboon mooy que Major euh, kii du bokk. Diomaye. Diomaye du bokk te Karim day bokk loolu la ñu léegi puisque loolu amul seen carte déjouée mais léegi ñu bëgg def leen neex. d'accord jërëjëf ah, jërëjëf Mamadou Mbodj coordonnateur F24 ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. Euh, ci réaction bi euh, am na solo leer na itam euh, nee na kon li nga xam ne daal moom mooy kawo bi ñu doon bañ di ko gàntal di tanqamlu dafa mel ni loolu moo nara am et que président Macky ci loolu la leen di woo alors euh, mun nañu jël euh, la réaction de notre chroniqueur maison euh, Cheikh Kane en attendant d'avoir d'autres réactions Cheikh Cheikh alors Cheikh yegg seegul donc euh, le temps que peut-être ñuy am la réaction de Cheikh euh, notre chroniqueur maison mun nañu xool euh, yeneen réaction notamment d'expert électoral Ababacar Fall bu CRADEC bu ñu ko munee am mu jàngatal ñu peut-être li nga xam ni moom le président de la République def fan la ñu jàpp ne mun na fa sukkandiku ba yoon may ko ko parce que moom justement dafa wax ne li ko yoon may moom la euh, daal di def mais nag ni ko Assane Samb souligné amul benn